ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc na jël na Tapha na ngi dóor ci suuf attention ak Boy ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy daan na ak TFM waxtaan bi wund nañ ko pare ñi bëggoon xam fan la waxtaan mujj président maa ngi lay nuyu ñu ngi lay fay di leen fii parce que démb dañu entamé woon benn waxtaan ak euh, gouverneur de Dakar ñu fekk fi kilifa gu réceptif nit ku disponible nit koo xam ni nit ku ubbeeku ñu commencé na waxtaan démb ñu nit defoon nañ ko ay proposition par rapport à la tenu des combats wu pour le trente 31 ak le premier ak yeneen yi ci war a tegu non ñun proposition ñu ko defoon moom mooy que ni dañu bëgg a organiser les le reste des combats parce que li des ci saison bi bariwut pour que mu jàppale ñu ñu def ko mu xamaloon ñu ni mënuñu ubbi stade parce que ñoom rassemblement la ñuy bañ ça peut être un vecteur de transmission donc ñu wëlbatiku loolu ñu ñu proposer leen ni 5000 places bu ñu ko amee danañu mën a jàppale ba ñu seet du ñuy organiser wu ba daal ciy génn mu joxaatoon ñu tey rendez-vous ñoom it waxtaan nañ ci seen biir bi ñu dikkee tey. ñaari proposition lañ ñu tegal report wala huis clos total ñun xamal nañ ko ni huis clos total arrangé wuñu parce que lamb ay millions la mu ni nag comme wii clos total arrangé wu leen report moo fi des ñu leen nag kon ñoom dañ jël seen ay responsabilité ñu daal di reporter événement yi jusqu'à nouvel ordre du loo xam ne dañ ko nangu c'est-à-dire qu'on est devant l'autorité à l'impossible nul n'est tenu wax dafay leer situation bi ni mu demee ñoom moom ak kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk ndakaaroog li ñu gis mooy ñun promoteurs yi bu ñu moo mënul euh, huis clos total report moo fi sës xam nga mbir bi ma leen nuyoo yéen ñëpp ba pare su amee dañuy boole xol yëpp d'abord mu nekk benn parce que yéen ñu ñuy déglu da ngeen a war a rendre compte population yi seen i appareil rek ngeen amee ñun ñoo jël sunu alal def ko ci làmb ji pour jéem cee bégal réew mi jéem cee am dara mais daan dans l'impossible aussi nul n'est tenu il faut pas que nit ñi fu ne ñu ko fay féetale yenn yi day wax sax mel ni ñu bëgg a taal réew wala mel ni ñu bëgg yàq te l'heure est grave feebar bi elle est là nit ñaa ngi dee làmb ji neex na lool on a mis de des de millions kenn bëgg koo perte mais nan nu épargnel ay wax yu ñaaw ca xam ne sunu réew la ñuy liggéeyal te ñi nga gis ñuy wax wax ñu ñaaw yëpp kenn liggéeyalul sa réew dara donc nan nu bàyyi tey l'État est très fort l'État mooy décider ci réew mi ñun ñoo fi teg état bi pour état bi dinu euh, dinu gidé état moo amee responsabilité réew mi aussi gis nañu tey dee yi ni mu mel gis nañu armeel ya gis nañu hôpitaux yi report bi neexunu mais dans l'impossible nul n'est tenu amatul bàyyi leen di personnaliser combat yëpp a yem du question Balla Gaye ak Bombardier ak euh, Papa Sow ak Siteu ak euh, Boy Niang ak euh, Tapha Tine keneen ak keneen combat yi combat la nan bàyyi di personnaliser mel ni ku bëgg jaxase àddina ak ci biiram mbër yëpp ay mbër rek lanu ay nit lanu ñoom ñun ñi koy tëgg mën ñoo dee ci affaire bi mbër yi koy bëre mën nañ cee dee ay nit rek a ciy dee donc tey état jël na décision mënuñu def lu accepté décision bi tey ñaan yàlla feebar bi tel fee jógee fii weer fii ñaari weer ñu defar combat yi keneen ko ñu defar ko ñëpp nekk ci jàmm ñëpp fekkee ko jàmm te yéen ñi nga xam ne yàlla def leen a jox cër ngeen di informer nit ñi ak di wax ak nit ñi ñuy wax wax ju baax ak wax juy defar parce que dégg naa barki démb ci télévision yi ay waay yanaamaa rek ay activiste ku nekk yi wax di ŋàññi làmb jeeg ñoom comme ñun nag tey accepté nañu parce que réew mi dañu nekk ci danger déglu accepté li état wax ñoom it nañ yedd seen bopp ca bàyyi wax waxi politique yi bàyyi xeex bee xeexoo bee ñeeroo bee ŋaayoo bi ca tal sunu mbokk yi nekk ci hôpitaux yi defe naa loolu moo gën toog ci plateau yi wax yeneen politiciens yi nga xam ni ay jaar nañ ci direction de société ñii jaar nañ ci ministre ñii tey jubootunoog Macky Sall ñii tey jubootunoog ci Ablaye Wade la nekkoon xëy na amatul lu leen neex man li ma leen di ñaan ak li ma leen di invité mooy feebar bi bari na état def na ci lu bëree bëree bëri mun la def lépp mais ku ci ne am na lu la yàlla dimbalee parce que Sénégal kenn mënul ñun tanewul leen ku yàlla dimbale fi nekk la leen yàlla dimbale rek ak li nu matoon jot a liggéey ci état nan dem jéem cee jënd benn détracteur à oxygène un million deux cent rek lay jar ñi jaar ci réew mi ñëpp ak waxkat yi ñiy waxkat yi ci télévision yi wax rek ak di yàq nan bu ni amuñu ko parce que kuñ ku ci amoon meeting dépensé ci ay millions nan dem a jënd détracteur à oxygène dem yóbbu ko ci hôpitaux yi faj seen i mbokk fajaale mbokk jaamur yi dafa naa solidarité boobu moom la ñuy xaar ci sénégalais mais pas di ŋàññante di xastante di yàq man jënd naa ba pare soo ko laajul woon sax du ko wax te danaa jëndaat te maa ngi invité képp koo mën ko yàlla dimbali ñëpp mënuñu ko du ma la ko wax ko mënul mais am nañu ko man ñi nga xam ne politique jaral na leen ay meeting de dizaines de millions mais nañ dem jënd ku mën a jënd fukk sax jëndal ñu dimbali malade yi nit ñi faju waaw mais rapport bi je pense que lii ñoom Gaston ak ñoom par président Pape Fall wax moo aujourd'hui nous sommes dans nous une situation boo xam ne elle est catastrophique euh, donc si par rapport ak pandémie bi donc euh, bu fekkee ne aussi état moo décidé pour reporter les combats vu la situation sanitaire de ce pays là on fait peut-être accepter parce que c'est normal nous sommes tous des citoyens et c'est notre droit aussi absolu de de suivre l'état dans ce qu'il veut report bi mën nañ ko xaar ren ji wala ça dépend ci feebar bi. non report bi ça dépend ci pandémie bi kañ lay jeex heure bu pandémie bi jeexee rek ñu revenir sur les combats mais pour le moment ak situation bi mu toll nii et on a vu génn na def visit si ëpp ci kii CTE yi donc les centres de traitement épidémique jaar na fa xool na gis na ñun aussi on nous a la situation lépp ñu xam ko donc vraiment bu waxee report aussi c'est leur décision on prend dañuy ñëw ànd ci lu ñu wax. waaw lamb lu ñu leen di lancé mooy ñu ñëpp ay citoyen lañu donc situation bi tey umpul kenn xëy na man je suis maa ngi si lamb ji am naa say ay ñoo xam ne seen parent yi ñàkk seen bakkan si si pandémie bëri na durant toute la semaine donc bu ñu waxee loolu aussi dañ koy apprécier ànd ci wax aussi képp ku nekk si amateur wa nekk ak lu lamb aussi que li état wax ñu ñëpp nañ ko si jàppale et puis man si participer activement pour que pandémie bi muñ fi jóg. loolu moo nekkoon li gën a fas fii nii ñu ngi fi woon fii ci gouvernance di xaar promoteur ji bañ génnee la ñu wax leer na làmb yi annulé ñu ko mais dañ ko reporté ba ëllëg ultérieurement bu feer bi gën a wàññeeku incha allah ñu tëggat combat noonu la ñuy def rek dañuy jaajëfal ñëpp di mastaw promoteurs yi di mastaw mbër yi supporters yi amateurs ñëpp ñu doon xaar làmb ji kon dañuy ñaan yàlla rek feer bi jóge fi incha allah bilal jaajëf ba ëllëg incha allah ci yeneen information yo làmb attention. ñaar sàkkees xeex na ñoom ñaar sàkkees boo ñaar jàpp na ko mot na ko yor. ñoom ñaar jéggi na su yor na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf. attention sàkkees ak boo ñaar ñoom xeex na ko.